yoo yo yo yo yo sama gaay ah dib de dib dib du nit dib dundu gis du nit dib dib dundu gis du nit musiba defaat na benn record boo xam ne kenn mësu ko def ci hip hop galsen en moins de neuf jours le single musiba vidéo bi def 2 millions de vies... sur YouTube ñu bañ ko bëgg ko Dip dund le king le king du hip hop galsen je pense que latke Tupac lu wax am ñu ko dañ ko añaan mais tey Dip moo flambeau hip hop Sénégal jaloor yi mu fi def lu mu fi def yëpp kenn defagu ko ñu ngi xaar nag <laughs> vidéo King Baba bi ñu ngi koy xaar parce que Dip dafa relever niveau bi ci kawa, kawa, kaw a kaw a kaw malgré que dañu constaté benn contre lui mais kenn mënu ko jot kenn mënu ko jot fu mu nekk nii félicitations toi félicitations toi